mbokki julit yi mbokki téléspectateur sen télévision lampe Fall ñu ngi fi ci pincum daru Xuddoos fi ñu tok nak buñ fi toogee wurtu bet kenn lu ko waral bis bi nga xam mënu ñu dëgmal di bisu magaluk daru Xuddoos magal gi nak lan la tekki kilifa yi nga xam mom lañu fasiyene tewlu ci jamono ji ñu tollu danañ ci indi ay leral ñu wara waxtane nak ben benn xët boo xam ne bu boobu kat julit di bari war nañ ko bàyyi xel ndax dafa jëm ci digënté doomu adama ak morom mom comme ni ko lislaam santaane sëriñ tubaa sunu sang ba am foo xam ne tegoon na fa lool li nga xam ne muy wëllëre ak ma nan la ko daan dundee nan la ko daan jàngale nan la ko njabootam tamit daan jëfee tax ba tey ji ñu am mbégte teew fi nga xam ne mooy jàkk ji di jàkkay Daaru Xuddoos xam naa ñoom Serigne Xaali Jaxate dañ ci dikk léegi ci lay jàkka ji ak li taxoon Serigne Touba nekkoon doon wéetoo sunu borom bi ci barab bu tedd bii jàkka ji nag fi teewee fekk nañ fi Serigne Xaali Jaxate di kenn ci magi murid yi ak kàngam yi nga xam ne war nañoo waxtaan ci li nga xam ne mooy xët mi ñu jàpp mi fegok serigne Mustafa Moustapha Diop al Kokiyu Fegok tamit serigne Ahmadou ndjay Nguerane ak serigne Mbacke Nayrul ki ñu war waxtaan nak ci li nga xamni moy mooy xet mi ñu japp serigne Touba famu ak mu nekk tamit ci ay mbokki talibi lañu don tamit Cheikh as euh, al Mustafa al Karim teew nii ci biir jàkka ji ñu fas yéene teewlu loolu nga xam ne mooy jotaay bi dañuy bàyyi kàddu gi nag sëriñ Xaali Jaxate mu amal loolu nga xam ne mooy ubbi jotaay bi dugg ci xët mi laata ñu jox yeneen kilifa yi di di kàddu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di leen balu aq leen baal ñaan suñu borom mu boole ñu baal euh, nuyoo yooyu ak ñu ciy jiital sahibul fadila sëriñ Tuubaa Seex Sidil Muxtaar di ñaan suñu borom mu yokk aw fanam ak wéram gën koo kàttanal ba njabootu lislaam gi nekk ci loxoom euh, liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu yëpp te ànd koog moom ci barkeb sëriñ bi di ko ñaanal it Cheikh Ahmadul Muxtaar euh, xalifa Cheikh Mahamadul Moustapha ak mbooleem njaboot gi di nuyu mbooleem mbokk yi nga ak mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan ak déglu seen télévision Lamfal TV euh, ci waajtaayu màggal gi ñu nekk ci ndigalal euh, Serigne Ousmane ak kilifa yi nga xam ne ñoo seq commission culturelle bi ci diwaanul muridina di waajal bis bu màgg di xisruuna muharram xisruuna muharram muy ñaar fukki fan ñaar fukkeelu guddi ci tamxarit di guddi goo xam ne euh, taarix bind na ko te dootu ko fàtte ndax mooy guddi gi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Moustapha indi Serigne Touba. fii ci Touba gannaaw bi mu liggéeyalee boroomam ba wàccu bu liggéeyam dellu si ci dëkk bi mu gënoon a bëgg ci kaw suuf muy Touba almahrusa waaye war a dajeeg sangam ba rasulullahi salallahu alayhi wa sallama dajeeg boroom mi mu doon liggéeyal mu fay ko kon guddi googu nekk guddi gu am solo goo xam ne ni ñu ko waxee taarix bind na ko ci ay ci ay xëtam te dootu ko far mu mel ne tey jii nag euh, fi suñu kàddu gën a jëm mooy euh, ittey Cheikh Mouhamadul Moustapha matal wëllëreem ak ormaam ci Serigne Touba xëy na bu waxtu wi day xat ba ngay tënk foofu waaye jëmmi yooyu ñu tudd ci lislaam muy itte di orma di matal wëllëre daanaka loolu mooy diine loolu mooy diine ndax ku ne xam na ni eh, suñu borom ba mu bindee ruux yëpp te wax ak ñoom ca na mu waxee ak ñoom yow ma yow ma ca alastu bi rabbikum ja balee rek mooy tontu la loolee nag ku fa jóge la koy matal ak na koy ñàkk matal mu ngi aj ci ni nga mataw ni nga matale wëllëre ak ni nga ko sàmmee kon Cheikh Mouhamadul Moustapha xamoon loolu bu baax donn ko ci Serigne Touba mi nga xam ne itte ci boppam la jële ndigal ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci ñi yar mooy mu yar leen ci rabbi asabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat wa rabbi kulli wahid maa yaliqu bi kon itte jooju Cheikh Mouhamadul Moustapha jële ko ci Serigne Touba di julit bu matub julit di murid sadikh waye jël seigne touba xamone la yàlla def ci mom gannaaw bu nekké way juram ba nopi mu nangu mu jappé ko li suñ borom def ci mom muy xet li akonu jamono mu ànd ak mom ci pestef bobé ba tax euh dundam gep mu joxone ko cheikh mu joxone ko Sëriñ touba ànd ak mom ci ni donga yep ànde won ak moom ba tax bo dello ci Cheikh ibrahim Diop al mashari nonu muy wax izana al la qawmi ma rama min muna fa kayfa billazi adna ilayhi isantama kon su fekkente ne mbooleem ñi fi baax ñëpp sëriñ bee leen defar ngir luñ ñëw ci moom defal ko ko kon naka Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne lu ko nit di defal ba ba di ca jëleeg baax Cheikh Mouhamadul Moustapha defal na ko ba noppi mu jur ko kon loolu tënk na aw dundinam ci digganteem ak sëriñ bi sëriñ bi nag dénkoon ko dénk bu rëy dénk dénk boobu it mu tegoon ci bakkanam teg ci bakkanam mooy bëggug sëñ Tuubaa moom faw day am eh, loolu ak jàppeelam ci sëñ defe naa ne dana xatagun fii waaye ku xool ci lettre boobu nga xam ne daf ko boole woon ak addiya te joxoon ko sëriñ am setu Jaxate ne ko nag ko joxal na mu ca waxee ak sëriñ bi danga xam ne kii ak toroxloom ak joxam war ma sëñ Tuubaa euh, àgg na fa mu war a àgg ba mënatu faa weesu kon ku ne xam ne ne kooku nag bu ko sëriñ Tuubaa dénkee mbir loole dana ca teg ba kanam moo tax Cheikh Mahamadul Moustapha matal wala réew sëkk ci bi ko sëriñ bi dénkee saabu bu suñ borom ñëwee ak dogalam nag koo indi fii ci Touba mu jëmee itteem jëpp ca loola ba suñu borom sural ko ca mu nekke noona loola di tawféex gu rëy goo xam ne tax na tey jii euh, suñ ko mënee wax motlik procès sëriñ bi ndax sëriñ bi kët diirub ak nekkam fu mu nekk mooy capitalu murit waaye nag ak bëggam nag moo nekkoon Touba gii nekk ab nekkuwaayam di ab delluwaayam képp ku koy wut si fekk ko fi muy dellukaayu liggéey bi te loolu dafa am solo ci ab liggéey euh, loolu nag euh, kon ak matam suñ borom a ko jàlle Cheikh Mouhamadul Moussa mi mu batale woon tam indi ko fii ci dëkk bi ci xisruuna muharram loolu taarix bu gudd la bu yaatu la xëy na waxtu yu mel nii du may di ca xóot genn xóot gi orma ji nga xam ne it bi mu ko fi indee boole na ko ca mooy xamle ne xamul itte ju jar ñàkk fanaan si ci dëkk bi ci guddi xisruuna muharram kon fu mu fekk nit fekkoon ñaari mbubb sax la am war na koo jaral jaay menn ma euh, te ñëw Touba bu fekkoon fa mu nekk dafa sarit war naa dox di ñëw ba fu mu mën a yem mu xam ne fa la waaye def na itte jëpp ngir ñëw ci Touba loolu lu yaatu les mën a expliquer lu baree bari la baatin ba moo ko xam waaye ku ne xam ne ne Serigne Touba ci dellu si Touba gi mu bëgg Serigne Touba ci da ci dajeeg sangam Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Serigne Touba ci dajeeg borom tabaraka wa taala loola day moom la fay am ku ko xam. du neex xam sax waaye jar na jóg ci lu ne waaye bis bi nekk bisub yoonu murit liggéey bi war a continuer loolu mooy aspect zahir bi wetuk wetuk zahir gi nga xam ne jëmmi yoon wi ci boppam kilifa yoon yi war a dajeewaat war a jëlaat ndigal ci Cheikh Mouhamadou moussa mi nga xam ne mooy xalifa bi te jamono booba melul ne tey jii nga xam ne moyen de communication yi dafa am xalifa bi bu soxlaa nit ñi yëg lu mu bëgg ci saa si mën nañ ko daal di yëg booba nag loolu demee gutoon noonu mu woo kilifa yëpp ñu ñëw ci bis bi gannaaw bu ñu defee seeni siyaar ci sëriñ bi siyaare dëkk bi siyaare barab yi fi nekk siyaare seeni sëriñ jokk ak bokk jàng alquran jàng xasida yi def salaatu ala nabi def istighfar waaye nag jël ndigal ci sëriñ bi am ay taw jihaat yoo xam ne ci la ñuy war a doxaat ren ba déwén loolu it zahir sa nekk lu rëy lu am solo loo xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha ci li xikma bi taxoon mu woote bis bi la bokk kon yaakaar naa ñaari yooyu mu wax len lu ci nekk jar na jar na ci ab murit Euh, fu mu la mën a fekk nga def itte ba fanaan si ko ci guddi gi ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mahamadoul Moustapha sàkkoo woon salaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh Moustapha euh, maanaam bi bi sëñ ma ci mbay dikkee fii te te bëggoon a dem Taïf noonee rek ca ba te te te yónnee Taïf Cheikh Moustapha ne na ko xaar fii bu Cheikh Moustapha dikkee teg sées bi ne ko toogal nanguwut a toog Cheikh Moustapha sëñ ma seexal mbay ñëpp toog fi suuf. nga xam ne kon kenn ku ne yaa ngay xool yàlla ca moroom ja waaye nag xam naa nag lay taxit nag ñooña joxante woon ci yor ma it dañoo xamante woon maanaa maanaa soo gisee ko ñoo xam ne joxante wuñu ko ci yor ma it maanaam mën naam dañoo xamante maanaa xamante gu jëkk ga taxoon taxoon nag kenn ku ne da ngaa ragal morom ndax ko ndax xam nga ne sa morom soo yeexee raw na la ci sa morom nga bëgg ko dab yow ndax ca taarix bu yàgg ba imaam mu mu Shaafi'i yi mas naa dongaam bu ñëw ne ko imaamu Ahmad no Hanbal de moo ma jox mbu mii en tout cas ma ko xañkat waaye nag ci waaye ci waaye demal tooyal ko jox ma jox ma ma solal ko joxaat nga xam ne Cheikh Moustapha ci janam warmaale le woon rakkam yu nga xam ne daanañ lekk ba ba noppi mu jël mboom jox leen maanaam ñu joxe fompo loolu lu kon coor ma la jo xam ne mën naa am nag la la ko jur mooy it mu mu xam leen ndax ndax seen ginnaaw sëñ bi ba si bekk bu sa dajalee ñooñee bëggoon ñoom ñu ñëw jokk ci ci sëñ Mourtala ci sëñ Moustapha te te sëñ Mourtala wax waxam ju ju siiw ja ne ne moom ci cont bi mooy ab ci wasilaam sëñ Moustapha jox leen aw maanaam ñam ñu koy seet sëñ Moustapha toog ci tuuri ne moom moom mu xool si Mourtala moom ñetti baaraam moom moom lay jëfandikoo ba noppee mu daal ne ah man kat euh, ma maanaam suñu baay bu baax ba dee bam ñuy digal man ak Bachirou meeg Fallou mii nee ñu as buy lekk tëngala wërta taq booba booba Mourtala mii fekkiwu ko wala la booba ba la maanaam ci ci ci nga xamante ne kon kenn ku nekk ci ci ci ñoom da xam. man xaba jikko ju tedd wala may gu gu ne ci sa sa ba nga koy xeñtu yow loolu nag moom maanaam cosaanul ma ji euh, xam naa bu bu dee waxtu wi kéegul masurung surang alaaji masurung surang defoon na fi lu am solo sëñ Tuubaa bi biñ ko indee fii moo xelal si mu du Moustapha ne ko wutal juróomi xibla yi juróomi euh, xibla gu nekk juróomi kilomètre bàyyee ko moom ko ndax nene mu ne ko soko defé kat toa bi du fi sañ def ab église du fi sañ a def ab tron nga xamé ni kon maanaam ni ñu wormalé barab bi ba nga xamantene li xew fenen um fi maanaam kenn gisul ci lu jégué jumaa ju lo xamantene nakari ci sun borom lolu kon alaaji masurum sun ci rahim mahullah momit doxon na ci doxino kon bismillah jërëjëf serigne mustapha Diop al Koki ñong lay sant bu baax ci kaddi nga xamantene ubbe nga ko jotay bi dañuy jëbël kaddu nak ki nga xamni moy mooy Ahmadou euh, Ndiaye Ngeraan mom kaddu yo xamni ni dana ko duggal ci li nga xamni moy xet mi ñu japp muy Serigne Touba fa mu tegoon wëlëre ak worma laata ñuy dik ci ki nga xamni moy Serigne Mbacke Lo Nayrul Maram Serigne euh Ahmadou Ndiaye Ngeraan bismillah aus billahi min asheytaan rajim barakat seexil xadim jërëjëf sëñ xaadi jërëjëf sëriñ Moustapha wax ji leer na ay tomb yu am solo yuñ mën a jariñoo juddoo na ci te képp kuy dégg te setantal te xam maanaam li ñu bëgg a wax te li ñu bëgg a wax mooy nu ñuy def ba jariñoo suñ Tuubaa te loola dara weesuwu ci lu dul sàmm sunu kóllëre sunu diggante ak moom yokk sunu orma sunu diggante ak moom te loolu faw ñu xam li nu lëkkale ak moom mooy tax loolu ñu mën koo sàmm sukkandiku itam ci model walla exemple mel ni Cheikh Mouhamadul Moustapha te nu doon dundee ñaar yooyu muy sàmm wëllëre ak sàmm kóllëre loola faw ñu bàyyi xel ci ni sëriñ bi li nu boole ak moom Donu ay jami juddum gennewul alal dorno mom moom donunu ci melna mam l'islam rek moo bolé ak ak ko le rek l'islam go gi nu bolé ak mom nag loolu faw nu xam ko ndax moy nu man man ko wagar ba man ko sam loola Seigne Moussa da ca joxe ay bindu yu am solo mag ñi dund ko sey Musa kay wax ni wajile musa bul fatte waje fa Touba mo la te fatu mo la te yalwani ngal la musa bul fatte cheikh Bamba ci dunya bu la do nak saxal ci lam santane mu bok ci ko le gog yi sax ci limu santane won bim fi nek sunu mam ya nekkon ci ak mom lolo dang ko wara xam ndax moy tax ñu waggar ko ni nako sa xol ni jak ndem raw na say bët mi ngi lay gis te bawul ak seytaane yoy bu ko nit ñi baye xel bayit woowi rek sun diggante ak señ bi dana leer te ñaar yi nga xamante ni doon nañu ko dawale doon ci ag señ Moussa daf daan wax ni lu jamono yag yag bu len tass yakar bu len fecc wala rek ndax yoy day am yu am solo yo xamante ni bu jógee ci diine dara amut mom nak da ca woné ay exemple ci ak tënk rek daa joxe leen lu gàtt mooy benn rob boo xamante ne ni amoon na sëñ Moussa ñëw ci sëñ bu sa ñëw ci sëñ Daam Abdourahmane ñëw ci ba ñu robee kilifa ga ba pare sëñ Moodu daa wax ni otoom otoom na yóbbu sëñ Mbàkke Buso yóbbu sëñ Daam Abdourahmane moom mii xalifa sëñ Tuubaa mu dox ñëw kon sëñ Tuubaa la doon xool ci ñoom sàmm ormay sëñ Tuubaa ji ngir takkoo gi ñu takkoon sëñ beeg maase gi ñu maase ci ay at ak jàppale gi ñu ko doon jàppale ci liggéey bi moo tax mu jox leen orma ji mu leen jox kon waxaliwuñ sëñ sa safoor ba ba mu demee ci sëñ Mbàkke Bousso ni ko sëñ Modou daa wax ni naa la yóbbu yóbbu sëñ Dame sëñ Mbàkke Bousso dañ ni ko demal yóbbu sëñ Dame ndax moo ma jiitu ci sëñ ba mu demee ci sëñ Dame ni ko sëñ Modou nee naa yóbbu yóbbu sëñ sëñ Modou sëñ Dame dañu ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ndax moo ma gën a jege sëñ bi bu dee ci ak bokk sëñ bu saa gën a jege bu dee ci ak njëbbal sëñ Dame fi jiitu kon ñoom ñett ñëpp ormay sëñ Tuubaa ji rek lañ doon sàmm loolu bu buñ ko bàyyee xel lépp Sëñ Tuubaa lañ koy waggar léppam duñu bàyyi daraam ndax lenn lu ci nekk rek danañ ko jox cër ba ak wàccuwaay bi ñu ko war a jox ngir ñu mën koo jariñoo te lii rek moo doon objectif Sëñ Moussa ba tax mu indi ko Touba sécuriser ko ndax tu bu fekkoon di laa bàyyi mu dem faneen bu jumaa ji noddee ab église dana tëggub jóoleelam te kenn du ci mën dara su fekkante ni ab kurel lay jang bu kurel ga daano ak sabar dana lang ci wet ga te kenn du ci mën dara su du loolu itam dana jam ba ju barab bi fayub secret door dugg ci bir mbaa ma bi teelu rek les mbaa boobu dugg ci bir barab bi te kenn du ci mën dara kon sam orma ji mo taxoon mu ko sam orma joji nak lepp diina la seigne touba dafa symboliser diina so xasse sam ormam rek sam nga ormay l'islam ndax li l'islam don bañ rek loolu la bi bañ bëgguk l'islam itam mo don bëggam kon ab julit ak xan ngay don bu raxut dara te rek seigne Moussa jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane kàddu yi nga ubbee li nga xam ne tamit euh, mooy jotaay bi murite na lool dikk nga ak ñun ci li nga xam ni mooy kóllëre ak worma fa ko sëriñ Touba tegoon nampatal ci tamit njaboot gi sëñ Moustapha Alkarim dikk nga ak ñun ci taxawaay bi nga xam ne taxawaay na ko jëmm ji teel ji sëriñ Touba Xaadimu Moustapha ba ko yàlla borom bi wooye fële nga xam ni mooy ca euh, wetam dañuy jëbal kàddu gi nag ki nga xam ne mooy sëriñ Mbàkke Lo Nayru Maraan moom tamit mu am kàddu yoo xam ne dana ko ubbee jotaay bi laataa ñuy dugg digg digg waxtaan wi xóotal tamit xool na mu ci nàmpatal woon njaboot gi ak njaboot gi nañ leen daan jëfe ndigal loolu ak tegtali ku baax di sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa sëriñ Mbàkke Lo bisimilah auusu billaahi samiil aliim min sarri seytaani rajiim wa min sururi nafsi wa idlaali hawa salaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayidina mawlana muhammadin il makiin wa alihi wa asaabihi wa abdihil xadiim salaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw nuyoo ñu ngi sof suñu siyaare ci e, sëñ mbokk yi xam ñoo jiitu e, seenub siyaar ak seenub nuyoo ci mbooleem njaboot gi yëpp ak sang yi nga xam ne e, ñoo joxe ndigal li ngir ñu toog fii ci jotaay bii ngir waxtaane lenn lu am solo lool te bokk yi xam ne jiitu nañ ci mooy orma orma ak kóllëre ñu jël ci ab exemple ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xamne mo ñëk toga toge toga yo cheikhul khadim ba sam, ga nga xamne non la ko sàmmoo won digëntem ak mom ci njabot gi ci talibi ak bokk yi nga xamne ñom la bokkal diine eh, eh, sang si ñëk wax wax nañ lu am solo lol lo xamne matna bayyi xel ci Cheikh mustafa digëntem ni leen xorma joju xamna du waaye dañ ci tënk lu gàtt rek mooy ginnaaw sëriñ bi ni nga xamee ne noonu la doon bàyyee xel njaboot gépp kenn ku ci ne mu wàccee la sa wàccuwaay ni nga xam ne noonu la ko defee ci seex si def ko ci ñii xam ne ñoom mooy njabootu sëriñ bi xam ne ñoom ñooy ay rakk lañ ci moom ak ñii xam ne ñoom lañuy ñuy tuddee ay taalibi lam ci waxoon euh, di lu mat a bàyyi xel lool mooy ñooñu xam ne ñoom ñi àndoon ak sëriñ bi xam ne dafa wax ni ñoom ci ñoom de ak yàqu weesu na ci ñoom ndax am mbokk ñëw na fa moom di wax ci kenn ci seex soosu euh, ay wax ba mu no ba mu daaneelee dana ko tuubal li nga wax ndax ka leen defar du defar kuy kuy dugg sawara wala ku yàqu loola ab tegtal la ci ne ma nga doon bàyyi xel ormay sëriñ bi digganteem ak sëriñ bi nag lu yaatu la ci xorma ndax am na menn kenn ci mag ñi sëñ Ablaye job lew ne nee na dugg nañ ci euh, jëm na ci kër sëriñ bi jóge ci këram googu ci njaareem jël summi ay dàllam di dox ci naaju tàng wi di fandaañu li ñuy wax fandaañu ba muy dem nee na tegal naa ko dàll yi ay yoon yoon waaye mu romb ko jàll ba mu demee bàgg ci sëriñ bi ba dëppaat bay ñëw sëriñ bi <coughs> jox euh, bi mu jëppee ba agsi ba rombaat barab boobu ne ko kii de ku la gën a xam rek gën la koo ragal mooy xorma jëm di dox digganteem ak sëriñ bi romb na xorma nit ak way juróom waaye nit ak kilifaam waaye dafa nangu woon nekk ci ronam jox ko cër bu mat sëkk bokk na ci xorma joojot mooy lu bari ci waxam wax nañ ne bu daan toog ci nekkuk sëriñ bi daw nangoo bu xasee jub sëriñ bi ba xam ne moom la ñuy néggandiku daw nangoo wax ak kenn day nekk fi benn barab ne tekk di déglu ab yëngoom xam ne bu ne bëreet bu sëñ bi yëngoom mooy ki ña njëkk a te ginnaaw moo ko wutu jërëjëf euh, mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi ginnaaw jotaay bu njëkk bi nga xam ni amoon nañ ko jëm ci déglu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu dalal fii ci jàkkee Daaru Xuddoos ci thème bi nga xam ni moom la ñu tànn di Sëriñ Tuba fa mu tegoon li nga xam ne mooy wëllëre ak worma dañuy dikkaat ak kilifa yi ku nekk nag am laaj boo xam ne dañ la ko laaj ngi di ci ay tegtal ci kaw njàngale ak jëf joo xam ne Sëriñ Tuba jëf na ko te muy wéy di sax dàq ci réewum Sénégal doon loo xam ne tamit manore la ci jullit yi doon tamit ndam ci jullit yi sëñ xaali jaxate la ñuy jébalaat kaddu sëñ xaalis sëñ tubaa ay jamonoom am na digganteem ak tubaab bi war ma joo xam ne séddewoon na ko ko bien que bokkuñu lu ñu gëm am na ñeneen ñoo xam ne ay kilifa diin bootoon ci yeneen i tarixa ku nekk tamit séddewoon na la cër yàqul ko dara ci liggéeyam loolu bokk na ci li ko may ndam nga dikk ci ñun sëñ xaali jaxate jërëjëf Serigne Mor jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñooñu jiitu ak kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko mu mel ni nag noonu ko waxee Serigne Touba moom eh, dafa tegu rek ci li suñu borom bëgg suñu borom ñëpp moo leen bind santaane orma sëriñ bi nag jàppe loolu noonu ko suñu borom defee ndax moom lu gën a tuuti dafay wax ne mbindeef moo gis na nga ci sàmm ak ki ko bind bindeef mooy lu ñu bind kenn créewul sa bopp créateur bi kon ki bind kenn la muy yàlla Sëriñ Tuubaa lu mu gis xam ne yàllaa ko sàkk yàlla moom la ciy sàmm moo tax boo ko tàmbalee ci nasaraan boobu nga tudd tamit noonu jamonoom waaye ay mbindeef lañ yoo xam ne yàlla leen bind euh, ay doomu aadama lañ te suñu borom am na orma ju mu jox doomu aadama kon ci wàll googu joxoon na leen ca war ma lañ ca yeyoo mooy du leen tooñ amoon sax bindub du fayonteeg tooñ donte du du tooñ bi mooy santaane bi waaye moom itteem ju kawe daf ko àggale woon sax ci du fayonteeg tooñ kon loolu joxoon na leen ko war ma en tant que ay nit euh, lañ féete it mu nekkoon nguuruk àddina te moom du itteem xëccoowu ko woon ak ñoom mësu leen caa xatal te nonu moy liko l'islam santane santaane luñ ca santaane won te du suñ borom téré sax dana ko jëfé luñu téré te suñ borom digle dana ko bayyi loolu ku ko def ak ñom wacc te moom defon nako ak ñom ci digganteem ak mbokki julit yim jamanon télon manam ci digganteem ak julit yépp julit dafa amel morom ma orma diko sam Lalu nang mom fi mu ci ag néew na ku ca mas ag. ndax defé na né fi mu tek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaawam déggaatuñu kenn ku ci mëna ag nonu mu defo nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non la defo nak sahabatu rasul gis nga sax buy tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba taggee sori mu né ayaa khadimul mukhtar la tansa zahbahu yonent kët am nay andando kon ñoñe yi ci yëf yi mat nañ cee boole mu boole leen ca bu baax ca façon ba mu leen cee boole waxtaan wi du ko maye. gannaaw saxaabatu rasuul gaa yu baax yi fi nekkoon yépp noonu yi la def ak ñoom ndax soo tàmbalee ci al aima al arbaa muy borom mashab yi fi nekkoon dangay gis orma jamu leen jox ba nga xam ne ci biir lislaam du mel ne kuy fentat wala muy indi dara ci sen wet daf nan a immati fil fiqh ne imam malik imam abu hanifa safi ahmad ñom ñep samay kilifa lañ ci fiqh waxe ko nam ko waxe jox len cieur ba mu len jox so wacce ba gën ñëw ci sen gannaaw ñomit gaay yu bax yi fi nek tay kilifa yi seen borom baaxee ñu yeesalaat tariqa yi da ngay dégg mu naan masaayix yi sayxunal jilaani wal xaadiri ahmad tijaani kilifa yooyu yàlla baaxe woon ñu nekk fi tey borom tey borom tariqa yi mu jàppe leen ay sëriñ di leen tuddee baatu samay sëriñ ak li ko yàlla may ak fi mu toll borom xam-xam yi nga xam ne dañ fee nekk di boroomi xam-xam maandu ragal yàlla di liggéeyal lislaam orma ji mu leen jox dafay tax sëriñ bi ci boppam buy bind sax daf naan tawaalifa saadaat yi ujaddidu naasiha ne man sëñ su ngeen gisee may bind kët damay fekk gaa yu baax yi fi nekkoon ci lislaam bind lañ bind nag ma dikk gën koo tënkaat gën koo defaat noo xam ne dana yeesaat gën a méngoog jamono waaye sax fentuma sama yëfi bopp loolu it mu digal ko moom bi mu ci nekkee bàggal mbooleem ku topp ci moom tey ab jullit loolu la la digal soo delloo ca masaalik lu mel noonu la ca indi wax taalibe yépp ne fa kullu wirdin yuridul murida yoon wu ngeen fi gis ci yoon yi jëm ci yàlla na ngeen ko fonk na ngeen ko wormaal ndax ñoom ñëpp ci yàlla la ñuy woote wax ne bu ngeen gisoon ab jullit sax boo xam ne dafa ne moom tënkuwul ci yoon yooyu xanaa daal waaye jullit la boroom a ko ñor wala tuhaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha fu ngeen gis ab jullit na ngeen ko bëgg kon sëriñ bi dafa mel ne noonu yi la joxe la joxe woon orma ba Eh, eh, mu sante ko it noonu njaboot gi topp ci gannaawam loolu yëpp nag dafay dellu ci ormalante gi nga xam ne lislaam moo ko santaane kenn ku nekk war koy bàyyi xel eh, ci sa moroom ndax koo mën a séen muy dem nag bëgg na ku ko wormaal nit koo séen bëgg na ko wormaal sëriñ bi nag ci njàngaleem daf lay wax ne ni nga bëgg ñu ni nga bëgg ñu def la ko nanga ko def ñëpp ni nga xam ne ku la ko def du la naqari dee ko def nit ñi loo xam ne ku la ko def mu naqar la bul ko def sa morom kon sëriñ bi defe naa ne mook orma léppam orma la léppam orma la euh, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daf ca doon wax ni bu fekkonte ne awma ci moom lu dutoon suuf si may taxaw daana ci taxaw asamaan si koy tiim daana ma tiim sama pëstef dana ma may ci moom maam ci li ma ci bëgg booy xool ci ni mu ci bindee it ya ca ëpp njariñ tañ man koo tudd fu nekk rek la bind ci moom waaye loo ca xam ne dafay dellu ci ak nite kese nit ak morom jadi di ko waxtaanee doo dégg mukk sëriñ mu tuddu ko ci yonent bi kon léppam daf ko tegoon ci orma tek ko ci ay teggine jangale ko ba tax sax dafa mujj teggine nekk ab ponk bu reuy ci mourid murit euh, serigne Mor. jërëjëf euh, serigne khali Jaxate ci ponk bobu ning ko yaatale digënté serigne Touba ak worma ña nga xamni ñom la jamonoon te ci walu Zahir muy nasaran bi bien que bokkuñu lu ñu gëm bokkuñu fu ñu jëm wante ñi nga xamni tamit ay njiti tarixe la teñ jamonoonte ak mom ci walu zaahir mu melni nak nag Sénégal bu ñu tënku woon ci loolu nga xam moy jangalim sëñ bi ak joxañam ak doxinam mën nañu wax ni jàmm dana sax aduna àdduna bi tamit buñ ci tënku won mën nañu wax ni aduna bi fitna ji ngi ak yaq ju metti jek toñ sunu borom bi di fat ay bakan mën na wax ni du am dañu jébbal na kaddu ki nga xamni moy mooy sëñ Ahmadou ndjay ngéran sëñ Mourou mustapha amna len lo xamni ni worma waajur wa di sëñ Tuubaa Xaadim Moustapha dikk nañ ci introduction bi muy lam ko battale woon matal na ko ba mu mat sëkk def ko gën gaa rafet defin wax tamit sëñ Mourou Moustapha digganteem ak ñi nga xam ne tamit ñooy gaañu baax ñi nga xam ni waajur wa di sëñ Tuubaa seqoon na ak ñoom loolu nga xam ne mooy coloré moo xam muy maam El Hadj ak ñeneen ren sax innovation de taille bi ci màggal gi mooy exposition culturelle boo xam ne danañ ko def jagleel ko maam El Hadj Malick loolu bokk na ci li nga xam ne tamit ngëneel la. jërëjëf sëñ Mor mel na ni kàddu gi leer na bi ñu tombalee waxtaan ci tomb yi nga xamante ne ni moom la waxtaan wi ëmb mu mel ni kii yi ñu jëloon ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir bëggoon nit ñi bàyyi ko xel ci lu nu mën a roye ci jikkoom man caa yóbbaloo ngir defar sunu tey ak sunu ëllëg ndax gisan ni léppam aw yiw la te model la exemple la boo xamante ne ni bu ko jamono jëlee dana ñu réussir ci nax-nax yi nga xamante ne ni moom la jamono indi mu mel ni seddoon na bu baax a baax orma jumat sëkk ñi mu bokkaloon jamono moo xam ay bokk la yu fi sëñ bi bàyyi moo xam ak njaboot la gu aju ci sëriñ bi walla njabootug lislaam gi nga xamante ni daa bokk ak ñoom diine ji te sëñ Tuubaa du seen jëwriñ ci tool bi wala ay nit yoo xam ne daa bokk ak ñoom réew mi te bokkuñu jëmuwaay mu mel ni ñeenti tomb yi sëñ Tuubaa rekk la jëfandikoo daanaka buñ ko doon tënk ñeenti tomb yooyu ci la yor ndax sëñ Tuubaa daa wax ni ñeenti jëmm ngi yo xamanteni jëm ju ci ne am ñett yu la war ci mom yo xamni ni defé jamm rek kay dox seen digënt mu ne yalla sa borom bu diglé na nga def bu téré na nga bayyi lu mu dogal na la neex soko defé jamm rek kay dox seen digënt ni mbokum la xarab moy mbok mo xamni da ngeen a ci deret moy bok xalaat bok yene bok la ngeen am lolé itam bok gum dug bok ka dana rafet dana tax mu ni mbokum talibé moy da ngeen ni sopanté wolonté tay dimbulanté loolu itam di lu mata a xel ki nga xamanteni ni la te xëy bokku len ab way wala bokku len njaatige gelu len yi bu ko xeb bu ko yeb bu ko bañ melni ñent tomb yoy yi andina li ñu bëggono wax ci biir waxtaan wi lepp waye bu ñu sété mom da ko pratiquer mu leer ndax melna ni ginnaw sëñ bi ci njabot gi nga xamanteni ni mom la fi bi bàyyi la mu waxoon ni moom lay dunde di gëm bokk yi waaw waxoon ni lépp lu ñu am danaa leen ko bàyyee te lu ma am danaa ko bokk ak ñoom te ku ma ci tooñ ma jéggal la loolu nag bu ci jamono jëlee rek ay gis ni mën nañoo soowee ci lu bare bare doomi sëñ Tuubaa yi mu fi bàyyi moom ay doomi sëriñ la leen defoon jëmmi sëñ Tuubaa rek la doon xool ci ñoom jàppewu leen woon ay doomi baay ba tax na lii xew ci jamono mu doon booba te loolu sëñ Blaat joxe na ci firnde ndax sëñ Blaat nee na sëñ ak sëñ Mbàkke Madina ñoo ma mag waaye man la sëñ Moussa jëkk sampal kër ci ñoom kon ormay sëñ Tuubaa ja moom fa ma ngay feeñ May mii fi mujj doon caatum sëñ Tuubaa wax na ni yeex naa xam ni moo sëñ Moodu ñoo bokk baay dañ daan wax suñu taalibe baay bee baax ndax ormay sëñ Tuubaa ji muy sàmm ci ñoom bu ñëwee mu jox leen ñu lekk mu jox leen mbubbam ñu fomp ca mu dindi xaliss ñeen addi señ tuba talal leen loxo ni ñaaral leen mom am seen ngërëmal bay loola mel na ni bu fekkonte ni kilifa gu ne dana ko bàyyi xel ca barab bam mu nekk ak njaboot gañ ko bàyyeel lii xew du xew loolu itam mat naa jàng ñu gis ni itam ñoo kër diine yi kër yëpp la amaloon relation kër diine yi fi nekk yëpp la amaloon relation alaaj ibrahima ñas seet si na ko fii ci daru naayam bam ñëwee tabaxu bi la génn dalal ko fa ba muy ñibbi daa wax mbooloo mépp ni nañ àndandoo gunge ko ba ca waruwaay ba ab soppe dañ koy wutal aw lay ndax nee na ku la yemale wut ak kenn boo ko yemale ñëpp mu gën laa gore moo tax te nee na genn ndomb ak ngëneel nag goo xam ne war na leen digg ñaari yoon amul loolu itam mel na ni aw bin law ña su fekkee diggam ak tubaab yi ministre de la colonie ñëw na fi 1943 boo xam ne dañu ko yaa ma tax a jóg sa jëmm rek ma tax a jóg muy sant si la ak jottali la ngeureum lu joge ci gouvernement français ak itam wax Afrique gi nga dekké ñi fi nek di yëngu ci diiné nga jitu ñu top ci sa ginnaaw ni lool nak nag ci làmmiñu kun la koy waxe ndax sama bara sama garat bi momako may sama ko santane dess nako def seigne Moussa ni ko wax nga deug nangul na leen li ngeen wax lepp waye li ngeen wax delo wat na leen ko am ngeen jaajëf ñaar rek la bëgg ngeen bayil mako fi muy yoonu jàkka ak yoonu li ci dess lepp na leen loola gis na ni ci li gën a boole umma islami bi loolu ca la bokk ndax loolee ku tubaab yi wax bu ko nangoo nit tubaab yi mën nañ koo def ci force waaye bu ñu génnee nit ñi ak féewaloo rek la indi waaw kunta kunta loolu moom soxna Ami Fët Seen maa nga fa dañoo am bokkuk deret am bokkuk diine ba pare bokk pas-pas moo tax maa nga woon Njaasaan loola temps bi da ko dul maye waaye dañoo tasewaat ci biiru bokk loo xamante nit ni dundal ak bokk da ko ñor waxtu wu ci nekk chef de service nettali na boppam bi mu ñëwee fii fekk fi sëñ Moussa mu yabal ko tindoo di ci sëñ Cheikh yabal ko ba muy ñibbi mu jaar ci sëñ Dame Abdourahmane jaar ci maam Cheikh Anta siyaare leen door a dellu moom commentéral na ko boppam ci bëgg a xam lu leer da nga koy delluwaat bu dee diggam ak tubaab yi am na ci problème bu amoon boo xam ne suñu Moussa daa dem ci tribunal bi fekk benn mbokk muñ téye woon ba mu ci tribunal bi bi muy dugg ci tribunal bi daal summi mbaxanam procureur bi di ko ni ko li nga def lo ci djublu ndax xam nañ ko xam nañ dimension bu mu toll mu ne ko xana warmal seen cadeau gi ngeen wax ni fi mbax na la fi koku wax ko ni ko tay xawma lula la tax a jóg waaye fi ñaan des na la ko may loolu itam ci diplomatie la bok ak dundinu simple wo xamanteni ni du rek nga ci nit taxawal nga nan da ngeen ma xamul ak martaba dee su ko bind cib jër te dee su ko dem ci sol discipline la rek boo xamante ne nii li fekk yaa ngi koy garde loo bëgg ci nit ñi mën nga ko am waaye li fekk nag yaa ngi ko bëgg def mbaxana moo xam ne da ko bëgg a teg ci kaw bëgg a jël sa tànk teg ko ci dox kaw yi boobaa gars yi dañuy gàntu rek asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf euh, sëñ Ahmadou Ndiaye Nguérane kàddu yi matale na ci sëñ Mourou Moustapha Mbacke ni mu dundale woon kóllëre ak ma comme na ko waajuram ba sëriñ Touba Xaadim Moustapha toqentale woon mu mel ni nag loolu doon na ab poñ boo xam ne boo am solo la doon tamit ab ponk boo xam ni Sénégal tey waxuma la Sénégal Afrique ak la monde en buñ ci tënk woon bàyyi xel diggante doomu aadama ak moromam la nga xam ni mooy ab cëram nga jox ko ko kon mën naa wax ni xëccoo bee xiroo bee ŋaay ba am ci àdduna bi tey jii ba jur ay musiba du mën a am Sénégal tamit gis nañu léeg yàlla mere ñu ndax kàddu yoo xam ni day mel ni firange la ak xëccoo bu metti te sëñ Tuubaa nekkutoon foofa njabootam gi tamit nekkoon ci kappaaram nekku woon ñu foofu mu mel ni nag am njàngaleem mel na ne kat mooy caabi ji nga xam ne bu ci àdduna tënk woon mën naa wax ne bunt boo fëgg rek dana ubbeeku ci jàmm ak salaam dañuy dëkk ak sëñ Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop alkookiyu ñu gis ni ki nga xam ni mooy sëriñ Touba ak njabootam doon nañ ñoo xam ni fi ñu tegoon pàkk bii ñu nekk muy Touba mel na ne kat duñu ko teg beneen pàkk ndax fay goo xam ne yàlla sunu borom bi faye na ko ko ci ngërëm lu mu làq ci liggéey bi nga xam ne suñu borom bi santoon na ko ko njabootam tamit bàyyi xel bu baax pàkk bi ku ñëw ku nekk rek la ngay wane daal mooy njàmbaar goo xam ne dinaa fi liggéey loo xam ne bu ma wanee ginnaaw ñu xam ne liggéey naa ak Sëriñ Tuuba ñu gis ni taalibe yi tamit fonk nañu lool dëkk bi ñu bari tamit di ko bàyyi xel loolu di war ma jooju laa bëggoon nga dikk ñun ci lislaam li mu santaane ci dundal lii di kóllëre dundal tamit war ma mel na ne mag ñi daan nañu wax ni ku doon kuy fecci kóllëre ku gàttu fan ngay doon té pour nga lakh ngeureum ak téxé tamit dan la jafé lol sëñ Moustapha Diop bismillah kon di gar kon rek ci mana sopp ci li sang ci wax xamna touba Tuubaa tedd ngay barab bi la Salmaanu Farisi ci farisi ci Farisi si waxoon ba mu gisee ñu jël mana niwi di ku yóbbu Madina mu nekkat barab du tedd waaye ka fa tedd mooy tedd kon moom maanaam Tuubaa kon sax tedd na ci ndax si maanaam Cheikh Umarul Fuutiyu moo jëkk xam tedd nga ba junj ko ba mu fi dikkee Mbàkke Bawol noonu ci taarix ba euh, maanaam euh, barab bi maanaam buñ ne barab tedd na du lu ñuy créer yit nag loolu it mën naa xam lool nga xamante ne du ne kat bu ñu ne Touba tedd na rek kon kon comme neex nga nekkat sa sama dëkk moom tedd na déedéet waaye ci waaye mbir la moo xam ne da ngay joxe yil la ba tax mu mu mën a ma tedd sëñ Moussa Tafa Lo moom sëñ Abdourahmane Lo nee na ma sëñ Touba mas naa ànd ak diw sàngam ba ci buntu jumaa ji booba xam ne jumaa ji kërama booba moo tax ko ndax soxna Amin Telo néegam ba ma doon ci barabu Cheikh mustapha bobu nee mu daal di ne koka mag la mu ne ko ya'la na alayka fa anta bil baytil ma'mur sumil dàll yi yaa ci baytul ci mahmur baytul ci mahmur sori ma ca mana legi ma bul foo ni ci ci bàyyi nan ay da nga mi jooni malaka ñoo koy wër guddi gu jot te ku dik do dikkaat nga kon maanaam ko ci ci kon foofa di jumaa ja nga xamante ne bu ñu ne Tuubaa dëgg mooy foofa kon nag maanaam dafa am tedd nga joo na ne suñu doom moo ko ko jox waaye dul luñ créé Cheikh Moustapha nekk na nekk na njaareem ñaari sang ya sëñ du Xaadir ak sëñ sëñ Murtala ne bay dem ne ba ci àgg ñu ne ko kat euh, maanaam léegi kumtali kat jege na dañoo bëggoon a dem dem Touba ñu umu ji fa Cheikh ngir waaw seen baay bu baax ba day newoon na lu baax fu ne la baaxee waaye Touba la gëne ndax dañ ko fay fule. xam nga kon xursi boobu bu kon nekkul luñ créé maanaam suñu boom ci boom moo teddal barab bi xëy teddal na Makka teddal Madina teddal Baytul Maqdis loolu moom sun sun sun borom waaye du nekk lu ñuy ci kere ndax it mën naa mën naa wax ndax ndax adduna adduna dañuy wax ba ci tàgg nit ñi yaakaar ne li ñuy wax dañ koo léeb rek. ñoom it ñooy def fent seenu lépp te te koy doom njëriñ ndax adduna moom lépp loo fi wax daa war a nekk lu lu wér ndax àllax ci sa tax waaw wolof nee na ku togg ak defe jekkuk neen kon nag adduna da ngaa war a bañ nekk ci nekk ci lu lu wér ndax ëllëg maanaam sëñ lu mu bu baax mi mas naa fekk diw sàngam ca barab bi kenn ci ci ñi doon liggéey ci barab bi kooka daal di tegale tànkam Ah, tëdd ca wetu barab ba tegal lay tànkam sëñ bi sëñ lu tere ko loola nga xamante ne kat ma dana am luy dikk ci kanam moo lay ci wan maanaam lu tax mu mu tere ko kooka bés mu teel a xëy lool ñëw ci barab bi fekk sëñ bi di julli xëy na sëñ bi ñoo xam ne moo tëdd fii mu ko mu taxaw fii di julli kooka dal ne këpp moom daanu di xam bañ ko andee ci sëñ Fallu mu ñaal ko ba mu xeqi sëñ Fallu ne ci ne kat maanaam léegi na ngay moytoo dem foofu nag ak sëñ baraana lu mu koy def maanaam baraana lu muy ñëw ci barab bi di fi julli foofu foofu foofu foo ko nit alaarif billaahi dëgg dëgg dëgg dëgg du moom du faatu al al alaarif dëgg dëgg dëgg moom loolu kenn du ko créer du sama mam nangam rek nga kerel ku yu bari bari dedit hari bi lay deug deug du faatu su fenki dina dina day jeex ci yalla di jeex di jeex jeex ba mujju mu mu fi bi mana la wax ci khatimatul munajat bil khatti xallaba lil man abqani wa kasa ihya'in bi saqani eh, magal gi ñi ngi magal ngi bi ñi delu ci boromam waaye am na foo foo mu wax ne kat yàlla de damaa yëkkati sama jëmm ji ak roogi la la yóbbu barsax te te waxoon na ci njaareem ni kat mas na ko fay fii dem xalo boo xam ne dina ba ba ma génnee demoon naa barsax ba ma fa demee nag roo yo fa nekk sax day jaaxle nañ ndax jëmm ji ma fa yóbbale ba mu dikkee ne indi naa leen ab sëriñ sëriñ ca ba mooy tàngal café boo ko tàngalee naan ca am ci yorob sarax boo ci kiyeen ndax nee damaa xool foofa ca barsax yorob sarax ëpp fa doole te ma gis ne samay ci waa kër ñoom fonk ku ñu ko muy kon loo mën a sëñ bi ne xal la bari lii ah yaana mu ne suñu boom wëlbatil na ma réalité yi yéen li ngeen tudd tudde dee fii man ak dund la loola eh, enrif bi lay dëgg ñi ñi ñuy dund tasawuf ci ci xam nañ ko ndax sëñ daam eh, Abdourahmane daana wax naan kàngam yi ku saa dem yàlla may na ko mu mu mën a dem eh, bokk ak yow sa maanaam nangan nga sagan gi gaganel aljana sëñ tam day ne fii moom di wax ak donga yeeg ya jigéen ñi ba noppi di ne foofa loolu loolu alif bi lay dëgg mën na ko donga yi sax am na ci ci ñoo xam ne dañ nekk fii ba noppi ku ku ku war a dugg aljana ñu mën a ànd ak moom loolu moom maanaam léegi marifatu billahi koy koy maye loolu nag kenn mënu koo créer waaw loolu moom kon moom maanaam ci kon it suñu bëggee kon ci war ma ji ñuy wax Touba man bu bëgg naa mu law fépp waaye nañ am nag ku mel ni ñii ñu am ñu ñu mat sëkk lañ doon maa ngi doon wax si Amadou Ndiaye dama mas a dégg kuy wax sëñam di ko tagg ba nekkat sëñ bi kat nee na mu ne dëkk ba ku fay ndox suuf laal maanaam soo amul pikir bi soo soo soo soo ko mën di jënd sëñ ba moo la koy may bëkk démb dong Madina aw fas wala xar su ko ndox suuf laalee kees gi sëñ Mbàkke Madina di nekk rek suufu ne suuf sa kepp mu wàcc loola nag moo yëf waaye du pikir pikir moom waaw asalaamaaleykum jërëjëf mbokk yi ñu ngi sant bu baax sëriñ Moustapha Diop Alkoki kii loolu nga xam ni moom nga waxtaan jëm ci warma ji nga xam ne moom la war a sédd dëkk bu tedd bii di Touba di pàkk boo xam ni pàkk du ko gën a màgg ndax sëriñ Touba mu Moustapha liggéey ba nga xam ne moom la liggéey na mu woon metti lool diisoon lool wante yàlla sunu borom bi diggoon ko ak pay pàkk bii nga xam ne benn caru garab la bu nekk àjjana bu law ba yegg si ci àdduna kon mbokki taalibe yi ñu bàyyi ko xel bu baax njaboot Serigne Touba gi jagam ñoo koy bàyyee cër sàkkantuma ak ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi mu mel ni nag Serigne Touba comme ni koy mag ñi waxee rek njariñ la loo xam ni ànd ak lor ku ci loro ku nek rek xañ na nga tabbe ci bir Serigne Touba la mais ku ci defaro ku nek tamit xañ na nga tabbe ci bir Serigne Touba yal na yàlla sunu borom bi defal xel mu sel xol bu sel jëf ju sel ba ñu am lool nga xamni moy mooy defaro ci tamit ba faaw dañuy jébal kaddu ki nga xamni ni Serigne bakelo Serigne bakelo da nga wax leg ci sa kaddu ni wormal sa kaddu waddu sa kaddu bok na ci li nga xamni dana jur jam ñu gis ni nak jamono ji soppeku na lool mbiri jaxaso ku yëkkati lu bon rek jëmale ci sa mbokkum jullit ku yëkkati lu tamit jëmbale ko ci sa mbokkum doomu aadama mu mel ni nag doomu aadama yàlla moo ko sàkk fonk ko te bu ñu ko joxee cër boobu ko yàlla jox rek yàlla di wàcce yërmande sëñ Tuubaa nag doonoon na koo xam ne fi mu tegoon doomu aadama kenn du ko fa teg ak njabootam gi sëñ Mbàkke nga dikk ak ñun ci loolu. jërëjëf sëñ Mor ñu ngi rafetlu kàddu yu jàll yëpp mel na ne rafet na te jot na fa inna xusnal amali fi ikmaalihi mu mel ne li nga laaj am na solo lool mooy sëriñ bi xorma ji nga xam ne moom lañ ko war a jox ak sëriñ bi xorma ji mu joxoon njaboot gi joxo doxale woon ko digganteem ak boroomam léegi dañ cee joxe benn exemple bu am solo lool te sëriñ bi léppam am njàngale la woon njàngale daan jàngale bind boo xam ne waxtu wu ci ne bu nekkee ci sa kanam rek day beesaat ba mel ne tey la ko defoon dañuy faral di nettali ne ci ak njëlbéenam am na benn kenn ci njaboot gi ñoo xam ne àndoon na ak ñoom ñu jëm ci barab am kenn koo xam ne romb na leen nuyu leen daal di leen romb daal di jàll bu ñu joxee nis tuuti am keneen koo xam ne jaar na fa di leen laaj jëmm ji leen romboon léegi ne leen damay laaj diw ndax amut ku leen romb am ci eh, taalibe yi kenn ku ne ko axakay ku gàtt te ñuul sëriñ bi daal di ni mu xorma ji mi sàmm digganteem ak nit ki tax mu daal di koy woolu foofu ni ko tuubal li nga wax te dellu ci jëmm jooju nga wax ne dafa gàtt te ñuul jéggalu ko bam mu jéggal nga do di ànd top sama gannaaw su ni jéggalu la jërul ngay ñëw ndax xormay dooma adama ji nga xamne mom lay sam xam l'islam da ko samon ci ben ak mom nim ko doon sàmmee digganteem mak njabot gi andal àndal bëggul benn gàkk-gàkk boo xam dana ci kenn ko xamne dafa bawu ci mom loola leneen la lo xamne doon na ko ko ci mag ñi kenn ci mag ci la jaay bu nit daataan tudd daan tudd nit fi moom day daal di toog daal ne ko xanaa xamoo ne kooku day buy naaw may naaw mooy kooku la ma bokk ak moom ku man di doon rek loolu la lay daal di tontu xanaa yow da ngay daal di luum yëg ni lii moom bokkul ci yoon wi tam lool di lu lu wuute ak njàngalem sëriñ bi ma joojot nit ñi war koo bàyyi xel sëñ Moussa wax na ko léegi sëñ Mouhamadou Lamine Gaye day muy sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Gaye jëmooy mu baax ma kenn wérante wut na ca nit yàlla yi la bokkoon borom xam-xam yi dañuy wax ne ca fuqara u saabiruuna ya la bokk wala su fuqara u saakiruuna ya wax nañ ne na nit ñi mag ñi buñu daan jógee jëmmooy di ñëw fii ku ñëw ne ko Touba laa jóge day wax ne yow yaay jiite ba ba keneen ñëwaat ku bees ku jóge Touba boo waxee mu ne ku la ku la gën a jege ku la mujj jóge Touba mooy sa imam loolu mooy xorma ji mu daan joxe jox jox sëriñ bi daana wax it ak njabootam ak ñi nga xam ne daanañ ko déggal di leen wax ne leen na ngeen xam ne kee tëdd fële ca barab bee de bu ngeen daan jóge fii di dem fa njaareem di ko siyaare ji di ko jox am ñoo xam ne dañuy àgg ba fa moom am ñoo xam ne dañuy dañuy dégg ay kàddoom duñ ko gis am ñoo xam ne dañuy toog ci pénc ma ne leen xorma joojee fee mu di tey tey xorma joojee tey ji la gën a raw kenn ku ci ne jegewaay ba na tolloo kem la nga amoon fa moom wala mu gën koo sori kon euh, nit ñi ñu bàyyi xel ci xam ne nit ki mu ne fi ak mu jóge fi li sañu Moussa wax dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax loolu sëñ bi moo ko jëmbatoon ci ñoom ndax wax nañ ne fi njaareem am na ñenn ci mag ñi ñoo xam ne toog nañ fi barab guddi la wala wax weneen waxtu woo xam ne xëy na wéet nañ fa di tudd ay nit di tudd ci ñoom leneen loo xam ne wuute na maanaam buñ ko tudd tey jëw lay doon sëriñ bi noonu mu baaxoo doxee di dox ci barab yi ba ne temm xam ne fee ay nit a fa nitu ci ñi nga fa tudd jëmm jàngale ma rek moom maanaam nit ñi ci la war a bàyyi xel mooy dafa dal di toog bàyyi ba mooy xormay doomu aadama ji barab bi ñu toogoon la woolu ay nit ñu gas ko ba mu xóot ñu jël suuf su suuf sa ca féete woon kaw xanaa fa lañ toogoon di jëw ñu féetale ko suuf jëlaat suuf su bees teg ca jàngalu fa lim ci ay kaamil mooy diraasa jàng maanaam euh, leçon la boo xam ne euh, maanaam bis bu set mu mat ab leçon ci nit ñi xane loola mooy waxuma la jëw waaye ñooñu moom bu ñu fa jógatee ba abadan dootuñu dootuñu bàyyeeti jëw loolat mooy xorma ji dox suñu diggante Cheikh Moussa doon ko jàngale ci ñun ci diggante nit ñi mooy ñun ñi ak taalibe yi xorma ji dox ci diggante sëriñ bi xam ne moom la doon doxal euh, mooy xorma ji dox ci ma bis bi ñu jublu mooy bisu màggal gi lu dox suñ kenn ku ci ne ameel nga njukkal sëriñ bi ameel nga njukkal Cheikh Moustapha ndax lam la defal wax nañu ci 1921 mbooleem kilifa yi diine yi kilifa yi nga ñu sosoon ci sëriñ bi ñëpp kenn ku ci ne ñaanoon nga bind bokkoon nga ci ñu bind ab leetar def naa sëñ Mbàkke Buso moo ko bind wala kenn ci ñoom ñooñu ñu jébbal ko euh, ki fi nekkaloon euh, colonialiste ngir bëgg sëriñ bi ñëw ci dëkk bi te mayu leen ko woon. Cheikh Moussa nag wax nañ ne ba mu yëgee ne sëriñ bi bàyyikoo na fi ba ñuy julli timis bi ñu jaataan julli fajar indil na ko indi indi na ko fii loolu nag kenn mënu ko koo fay kon ñëpp ko amee njukkal te bu fi nekkul woon fu mën di ne li sëñ saa wax léegi na barab bi mag na waye jëmm ji fi nek motax gaay yi jóge fenn fu ci ne nit dafa indi dafa indi waye du jëmmi suuf si suuf si jëmmam borom suuf da fay nek ci bir suuf motax ñepp tax di daw di ko fi ñu. Euh, jërëjëf sëriñ Mbacke Nayrul Maraan ci waxtaan bi nga xamni ni ji tënkee nga ko ponk bi nga xamni mom lañ doon doon laaj mbokk yi comme ni ko waxee won mbokk yi téléspectateurs yi dañuy jëbël kaddu gi ki di serigne Cheikh aline Mbacke. di président comité d'organisation Maglou Daaru Xuddoos moom na moo war a tëj jotaay bi am loo xam ne danañ ko dikkal ci xibaar ci li nga xam ne mooy wàccaay bi wante jéego yi nga xam ne tamit mi ngi ko amal fële ci woon doon gi si njaboot maam El Hadji Malick gi ngir yeggal leen li nga xam ne mooy cër bi ndeen cëralee ci Maglou Daaru Xuddoos ren gi sëriñ Cheikh Aline Mbacké la ñuy teewlu. jërëjëf euh, sëriñ Mor euh, jërëjëf euh, sëriñ Mbacké Lo ak ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci kàddu gi. wax ji rafet na ni ñu ko waxee rek noonu la euh, li doon thème bi moo doon wëllëre ak war warma euh, ni ñu ko waxee noonu la ndax sëriñ Touba ginnaaw bi mu liggéeyalee yonent bi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu rëy boobu mu ko liggéeyal euh, mu yeesal diine lislaam nekk mujaddid woote woote bu rëy bi kilifa yu baax yow wuy si ko mu ànd ak liggéey bi ak Mamor diara ak bokki mamaram yëpp liggéey liggéey bu réy bi mu def jëmale léppam ci yonent bi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox ko léppam ba suñ borom fay ko ca loola moo waral bis bi tey ñu leen ko nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha xalifatul awal moo ko jagleel way juróom wu tedd wa bi mu jógee njaareem wujj suñu borom mu indi ko Touba al mahrusa bis boobee nag li ñuy waxee bis bu ne euh, bis la muy bi nga juddoo ak bi nga euh, delloo bi nga juddoo ci la sunu borom di tàmbali di enregistré di xool li nga def lépp ci àddina bis bi nga demee nag mooy bisu joxe bilan bilan bu positif nag la sëriñ xadim cheikhul xadim yóbbale bàyyi fii njàngaleem moo xam ne moom lañuy topp euh, xalifatul awal teg jalon yu jëkk ya tàmbali ko waajal yoon wi indi eh, condition yi ñu waroon a daje yëpp ngir yoon wi dox mu doxal ko rakkam yu tedd ya ñoom itam doxal ko ànd ca ba yoon wi egsi fii tey eh, wëllëre woowee itam moo nu yóbbu woon tey ci dëkk sunu maam bu tedd ba di eh, maam El Hadji Malick bi nu demee nu dem ci Serigne Abdou Sissi Al Amin Euh, mu teeruñu bu baax a baax tatagal ñu bég ci lool ndax ñoo bokk maam maaram mu rafetlu ko lool ndax kenn ku ne xam na ne ca bis ba incha allahu euh, buñ nee suba la danañ am exposition boo xam ne dañ koo jagleel suñ maam jooju nga xam ne ñoom bokk maam maaram bokk lislaam ji te moom mook Cheikhul Khadim ak ñi nga xam ne ñoo ngankoon turux yi liggéey nañ fi liggéey boo xam ne bu jàmm amee Sénégal ñoo ko fi indi ndax gis nañu li xaw feneen lu yomba leeral la moo di mbooloo lu mu bari bari aju nañu ci ñoom ñi ci ëpp majorité bi ci ñoom lañ aju te fuñ joxañ seen baaraam fa la mbooloo may jublu loolu nag boo amee yàlla dogal duñ joxañ fu mukk fu dul fu baax kon ñooñu réew mu ñu nekk ñoo aar réew ma alhamdulilah ginnaaw yàlla kon bañ fa jógee itam ñu jàll ci suñu wéjur euh, di Serigne Maodo Touré moom itam mu def noonu teeruñu teral ñu jox ñu alxuraan jox ñu mbindum Sidi El Hadj Malick euh, bu baax a baax moom itam ay kiimaan génn fa euh, loolu danañ ko leeral ci kanam maanaam ba mu ñu joxee téere ba euh, lanu ca jëkk ubbi muy téere maam El Hadj Malick lan ca jëkk ubbi daf noo won ne dafa mel ne dafa yëgoon ne noo ngi ñëw ndax da ca feeñal màggal gi loolu lu lu kiimaane la moo tax màggal gii nga xam ne mooy bi Serigne Touba jógee njaareem Cheikh mu saa indi ko fi mu ñëw Touba yaakaar naa ne bu loolu amul woon Touba dana demee neneen tey waxuma la nag raay bañ ko gasloo nga xam ne kenn mu sa gis ku ñu bu ñu buñ gasloo raay waxuma la njaboot gi mu taxaw waaye loola rek boo boo ca yemoon day mel ne Touba du mën a mënu woona a euh, demee nii lu dul loola am kon alhamdulilah màggaluk Serigne Touba la Serigne dafa yaataloon

bi mu dellusee ca la leen gën a jàpp gën leen a saytu gën leen a taxawu ngir euh, jëme leen ci yoonu Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yi mu jëmbat ci ñoom kóllëre goo xam ne képp koo xam ne dénkoon na boo xoolee maam Thierno rek la ko dénkoon muy ndénkaan la ba mu dellusee nam ko fonkee doomam yi roy ci moom ci wàllu googu tàmbale Cheikh Mamadou Moustapha rakkam yu bare bari daa magantewul ak Serigne Fallou waaye moog Serigne Fallou mottali nañ kóllëre gu mel noonu ci seen rakk yu tedd yi ndax ci seen daraja lañu tibb joxe ko kóllëre maanaam maanaam seereel seereel ko kóllëre moo di Cheikh Mamadou Moustapha da jël jox la dëkk boole laag nit ña ne leen ku ñëw nar a ñëwati ci man cib taalibe yemal ci sama rakk ji nga yem foofa loolu mooy wëllëre mag ñu baax ñi fi ne woon ci ci réew mi itam lépp lu ma sa xew fenn danañ jóg ngir kóllëre sol seen i dàll booba jamono jafe na ndax moom Cheikh Mouhamadou Moustapha ci waxtu wu mu dikkee waxtu bu jafe la moo di diggante ñaari guerre 14 18 39 45 nga xam ne booba dara amul xiif am ràmm am rafle am ci diggante boobu ay jafe-jafe am nit ñu bari yow gi melu woon noonu nga am xelum mën a euh, dajale ndigal fexe ba sottal ndigal yi nga xam ne Serigne Touba bàyyi woon na ko li ci gën a am solo mooy jullikaay bii di jumaay Tuubal Maxruusa euh, ci condition yu metti la ko def euh, dajale njaboot gi la ko war lépp mu def ko euh, lépp loo xam ne war na ko ci yoon wi nga xam ne léegi moom la ñuy def lu ne mu tàmbali ko rakkam yu baax ya fi jaar yëpp di xulafa wala ñeneen nga xam ne doomi Serigne Touba la kenn ku ne la cay sa waru gar ba sa ba nga nekkee Serigne Touba rek Serigne Touba daa roofu ci di la jëf loo di la wax loo kon noo ngi xamal ne e, màggal gi ñu ngi ciy woo ñëpp e, ci góor ak jigéen mag ndaw waa kër njabootu Serigne Touba gépp ñu ngi leen ciy woo e, incha allah danañ Serigne Cheikh Tidiane Sy Maktoum moom itam yëgal nañ ko ko ba moom itam bànneexoon na ko lool ak Serigne Maodo bu Serigne Abdou Aziz ñuy wëlëre loolu nag dañ koy def dimanche ñi nga xam ne buñ nee suba la altine di màggal gi loolu dañ koy def incha allah danañ ko danañ ko danañ ko doxal Euh, war ma itam moo di Serigne Touba ci boppam dafa war maa mag ña fa nekkoon ndaxte eh, Serigne Abdou Aziz mi ñu koy nettali am na nee nañu Alaaji Malick ñaari dëkk la bëggoon ñaari daara muy Jaksaaw ak Gosaas bi mu yëgee ne Gosaas Serigne Touba mi ngi njaareem daf ko daal di wormaal maal kat foofa kon sëriñ Touba moom moo fa nekkal loola dafa am bu ko defee ñam fa bàyyi woon rek ñoo fa des waaye loolu la daal di wax loolu mooy war worma kon nag loolu mooy fondation yoon wi moo sos yoon wi war maalante nag daa dem bay bëgg a jeex kon war nañoo roy ci mag ñu baax ñoo ñee nga xam ne ñu mooy maam xaadimu rasul maam El Hadj Malick ak ñi yor turux yi ci Sénégal yëpp nga xam ne wëllëre ak joxante wormal lañ fi nekke woon ba tax ñu mënoon a dajale doomu adama yi yëpp kenn ku fi masaan def leneen sa pexe sa fexe far na waaye ñoom seen jëf des na fi ba léegi te loolu war ma moo ko defoon saa bu war ma jeexee rek maara day taali loola mën naa jooy jëme feneen kon ñu yokk war ma ji kon ñii nii ngeen waxtaanee ci warma euh, lu am solo la euh, ñoo ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm ci seen wax yu sell yi ni ngeen ko waxee noonu la kon yàlla na yàlla def ñuy man di sàmm wëlëre ak di joxante ma ndax defe naa ne yoon wi loolu moo ko yor loolu lislaam lu lislaam gërëm la lu yàlla gërëm la lu yonent bi gërëm la te loolu mooy indi jàmm moo indi juboo waxdatul muslimin looloo koy indi kon yàlla na yàlla def ñuy nit yu war ma di nit yu wëllëre te ñu ñaan senegal yàlla def fi jàmm muy réew mu naat ñëpp am jàmm euh, di ñaan nag ñëpp nag ku ko man nga wusi ci màggal gii nga xam ne mu ngi am ci le 2 novembre di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram di ñaar fukki guddi ci weer woowu kon ñu ngi ci séentu ñëpp euh, jullit yëpp di ci séentu ñëpp ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal Euh, ci li may wax ci warma mais ñëpp la warmaaloon amul jullit sax day weesu sax jullit ñi warmaal ndax day dem ci xelam day dem ci yaa maalikal mulki yaa man yàlla irham jaamel waraaja sëñ Tuubaa waxoon Cheikh Mouhamadou Moussa noonu defoon ñi fi jaar ñëpp noonu lañ defoon warmaal kon nañu roy ci ñoom te warmaalante yal na yàlla def jàmm ci umal islaam bi yëpp ñoo ngi séentu ñëpp di ñaan buñ ci eggee ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi loolu moo doon jotaay bi nga xam ni moom lañu seqoon ak yéen jërë ngeen jëfati